seen émission ëttub xidma di fas yéene jàngat xutbab ajuma tey gi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mamoun doon def ci arab muy ajuma ji ajumay ñaareel ci weeru safar xutba bi comme ni ngeen ko déggee ñaari xutba la xutba bu njëkk bi nga xam ne bi nga ko defee toog na ak beneen xutba muy xutbab ñaareel bi nga xam ne mooy xutba bu mujj bi bu dee xutba bu njëkk bi mën nañoo wax ni thème bi mi ngi jëmoon rek ci euh, mission bi taxoon a jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak effort yi mu ci def bi mu fi bàyyi ko it biñ ko noppee gis effort yi ci saxaaba yi def bi fi saxaaba yi jógee effort yi ci ña leen toppoon def ñu leen di tudde ay taabi'un muy rek génération bi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw saxaaba yi ñooñu it bi ñu fi jógee ñu ñëwaat ci seen ginnaaw effort yi ñu ci def loolu mooy temu xutba bi jiitu bu dee xutbam ñaareel bi tem bi mi ngi jëm ci sëriñ bu mag bi radiallahu anhu moom bi mu ñëwee nan la taxawee ci euh, njàngaleem yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam te muy njàngale mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi da ko doon jaarale ci alxuraan ak sunna kon bu ñu ñëwee ci li composé xutba bu njëkk bi mën nañoo wax ne dafa commencé rek ci tagg suñu boroom subhanahu wa taala sant ko tatagal ko delloo ko njukkal waaye julli e, ñaan suñu boroom mu dolli xéewal ak mucc yonente bi sallallahu alayhi wa ak i ñoñam muy ay mbokkam ak ñi àndoon ak moom bokk ak moom jamono te gëm ko muy ay saxaabaam ñooñu nga xam ne ñoo gën ku ñoom foofu lay waxe ne ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu waajalal ci sababi texe loo xam ne ñun rekk la ko defal waaye di ko sant di dellu ci moom di ko tuubal di ko jéggalu te xam ne moom rekk mooy jéggale te ku ko jéggalu it ku ko baalu mu baal la ñi ngi wekki suñu mbir yépp ci suñu boroom moom te mooy ki nga xam ne ku ko wéer sa mbir doye na ko mate na ko sëkk waaye ñi ngi julli ci yonente bi nga xam ne bu doon tedd nga bu doon aw doj wala aw montagne wala daal barab bu yëkkatiku mën nañoo jàpp ne moom mooy njobbaxtal la moom mi nga xam ne suñ borom da ko bind te amul maas waaye ñi ngi julli di ñaan xéewal di ko ñaanal moom moomu di ko ñaanal ay ñooñam ak i saxaabaam ñi nga xam ne suñu boroom moo leen def ñu gën ku bokkut ak ñoom ginnaaw bu loolu jàllee mu ñëw ci biir xutba bi li ko tax a jóg lim ci njëkk a wax mooy fàttali euh, njariñ li tax suñu borom bind jaam yi xikma bi tax suñu borom bind jaam yi te mooy ñu jaamu ko rekk moom kase jaamu googu nag balañ koo mën a nangu balaa mën a am njariñ day am ñaari sart yu ci daje sart bi ci jiitu mooy ñu def ko te yàlla rekk tax dara bañ koo rax loolu mooy ixlaas ñaareelu sart bi mooy bu ñu koy def ñu jaare ko ci yoon wi yonente bi sallallahu alayhi rëdd bañ koo jaare ci suñu yoonu bopp wala ci suñu xalaatinu bopp foofu lay waxe ne bokk na ci liñ xam nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci eh, suñu diine ji di diine lislaam mooy suñu borom dafa bind mbindeef yépp ngir xekk ma ngir mbóot mu tax mbóot moomu mooy ñu jaamu ko moom kase ndax suñu boroom mooy wax ca alxuraanam ja di wax ne di digaluma leen lu may ngeen jaamu ma waaye it bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko jaamu googu nag dafa am ñaari charte yoo xam ne deesu ko nangu lu may ñaari sart yi dafa mat te mooy jaamu gi ñu jaamu yàlla ñu koy sellal waaye it di ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa boobu nga xam ne dafa am mission bu ko taxoon a jóg loolu mooy ñaareelu tom bi ñëw ci xutba bi mission bi ko taxoon a jóg mooy jottali li ko suñu boroom yónni loolu nag mu def ci ay effort yu mag a mag a mag ndax risaala bi mu yoroon mission bi ko taxoon a jóg jotal na ko ba mat sëkk kóolute gi ko yàlla tegoon ci gàlloon ci aw loosam wax ko ne ko lii laa bëgg ak nii laa ko bëggee moom it joxe na ko ba mat sëkk euh, lii waroon a jaar ci digganteem aku xeetam ci ay laabire akum njàngale moom it taxaw na ca taxawaay bu mat sëkk yonte boobu noonu la fi nekke woon di laabire di jàngale di orienté ba keroog niñ ko mujjee gise bi mu demee balàqu bàyyi fi ay saxaaba ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñooñu ñoom it daa ci am liggéey bu mat sëkk daal di continuer mission bi di jottali lépp nag ñu koy sukkandikoo ci alxuraan ji fi yonent bi sallallahu bàyyee ak sunna si nga xam ne ci la jaaroon saxaaba yooyu bi ñu demee ñoom it balaa ba gisatuñ leen ña topp ci ña toppoon ci seen ginnaaw te bokkoon ak ñoom jamono jànge ci ñoom te leen ñu leen di tudde ay taabi'un ñoom it bi ñu ñëwee di taxaw taxawaay bu ma sëkk ci jot li mission bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam amee woon ñooñu bi ñu fi jógee ñi ñëwaat ci seen ginnaaw euh, doxewaat moo ni jaaraat ci seeni tànk ñoom ñépp nag niñ liggéeyale alxuraan ak niñ liggéeyale sunna génnut yi mooy daanañ ko jàng daanañ ci ball lu ay àtte lu mës a xew bala ñoo jéggi-jéggaan dañuy njëkk a xool alxuraan ba xam am na ca kàddu wala amu ca kàddu buñ ca jógee xool sunna ba xam am na ca kàddu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax dara wala mosu cee wax dara buñ noppee nag ñu soog a def li ñuy wax ijtihaad bokk na ci niñ défendre alxuraan ak sunna mooy eh, daanañ taxaw eh, ba kenn du ko laal fexe nañ ba bind ko ba tosaare ko fexe nañ it ba ñoŋal ko loolu lépp muy dëggal la yonente bi sallallahu alayhi waxoon ne sama xeet wii fu mu toll dana fi am ñoo xam ne li leen di ñor du nekk lenn lu may dëgg ku ca man di wuuteeg ñoom duñ la faale ku ca ku leen ca bàyyi it ñu mën caa dox ñoom kase ndax xam nañ ne liñ nekk mate nañ ko noonee noonee lañuy ñuy doxe ca yoon woowu it la jaar ba keroog ñu fiy jóge moo tax kon Euh, effort yii bi mu dajee saxaaba yi ridwanullahi alayhim ak ña toppoon seen ginnaaw ak ña ñëwaat ca seen ginnaaw ñoom ñooñee effort yooyu bi mu dajee moo tax sunna euh, des fi ba suñu jamono ji ndax kenn ku ci ne ci génération yooyu ba ku ci ñëw rek da ciy def liggéey bu mat sëkk liggéey bu ñoom waaye jëmmi alxuraan moom ki ko sàmm mooy ka waxoon ca ak njëlbeen ne maa warlu sàmm ko te mooy suñu borom subhaanahu wa taala moo waxoon ci alxuraan ne alxuraan ji ñoo ko wàcce waaye ñun ñoo koy sàmm kon ci gàttal xutba bu njëkk bi ci loolu la jëm wax ne daal e, suñ borom li tax mu bind ñu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ko ñaari charte la am mooy dañ koy sellal ba noppi jaare ko fi ñu yónnente bi sallallahu alayhi wasallam joxañ jaamu yàlla googu nag dafa am lu koy jàngale te mooy alxuraan ji fi yàlla wàcce ak sunna si yónnente bi sallallahu alayhi daan jëfee bu dee loolu yonent bi sallallahu alayhi def na ca wax na ca lu mat sëkk bi mu fi jógee saxaaba yi def nañ ci wax nañ ci lu mat sëkk ñooñu bi ñu fi jógee ñi ñëw seen ginnaaw def nañ ci wax nañ ci lu mat sëkk bu dee xutbam ñaareel bi nag moo gën a spécial moom dafa jëm ci euh, gannaaw bu ñee jàllee ba yëf yi yegsi ci jamonoy sëriñ bi radiallahu anhu yan taxawaay la ci taxaw xutba bi fi mu tàmbalee rek mooy sant yàlla mi nga xam ne moo teral jàkke yi ñu jullee moo ko tànn it waaye sant yàlla mi nga xam ne moo teral xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni fi yonente bi mujj daat koy tànn julli ci yonente boobu nga xam ne lépp lu mu mës jëf dëgg la lépp lu mu mës wax dëgg la waaye ñaanal ko suñ boroom gërëm ko dolli ko ay xéewal defal ko ay saxaabaam ak i ñoñam gannaaw bu loolu jàllee mu wane ne mu ñëw ci xutba bi luy wane ne daal jamono ju jot suñu boroom dana fi feeñal ñoo xam ne dañuy yeesal li yonente bi sallallahu alayhi nekke woon dañuy yeesal déggiinu alxuraan dañuy yeesal déggiinu sunna loolu dafa bokk ci li suñu borom di xéewale xeetu yonente bi sallallahu alayhi saa yu ne jamono ju jamono ju jot looloo tax mu ne suñ borom subhaanahu wa taala ci ay xéewalam ak i mayam tax na day saa yu ne jamono ju ne day tànn ay tànneef yoo xam ne dañuy sellal te yàlla rekk tax ñoo xam ne dañuy jaar ci yoon dañu tegu ci yoon waaye li fi yónnent bi sallallahu bàyyi woon dañ ci dañ ciy sax mu wax ne bokk na ci xéewal yooyu ak teraanga jooju nga xam ne moom la suñu borom di defal xeet wi mooy nag mu feeñal ci jamono ci jamono ci jamonoy kimtaan goo xam ne dafa bokk ci kimtaan yi suñu borom yi kimtaan googu nag du kenn ku may xadimu rasul te mooy Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu looloo tax mu naan fa azhara li hada diini ayatun min ayati llah alladi huwa xadimu rasul sallallahu alayhi wa xadimu rasul moom nga xam ne dañoo dëppale turam ak turu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax da naan xadim ne ar rasul nga xam ne ñoom ñaar dañoo lëkkaloo ba mel ne ba mel ne ñaar yu munta tàqalikoo mel ne li ñuy wax sila ak mawsul muy ñaar yu munta tàqalikoo rek al mudaaf ismuhu ila ismi ka silati sëriñ bi nag bi ko yàlla feeñalee ci jamono mu nekk kéemtaan lan la jëfal alxuraan ak lan la jëfal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci effort yim def jëfal ko alxuraan jëfal ko yonent bi sallallahu alayhi wa jëfal ko diine ji mooy ne dafa oriente xeet wépp ci wax leen joxañ leen ci ñuy sellal jaamu gi ñuy jaamu yàlla sellal ko rek te yàlla tax waaye it jaare ko ci yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxañoon foofu lay waxe ne alqaa'imu bitawjiihi lil ibaadi ila taxqiiqi ibaadillah ila taxqiiqi ibaadatillahi kama yuxibbuhu wa yardaa huwa tariiqu rasuuli sallallahu alayhi wa sallam almutamathilatu fi aqwaalihi wa afcaalihi li qawlihi taala wa in tutiicuhu tahtadu euh, sëriñ bi nga xam ne bi mu ñëwee dafa leerlaat yoon wi lépp lu ci ay taq-taq mu dindi ko sëriñ bi nga xam ne bi mu ñëwee lépp lu la moon leer na waaye lépp lu tilimoon tamit set na wicc léegi kuréer rekk ci sa bakkan xay na wala ci sa bànneex ci la ci nga ci la ci nga jaare ba réer ci biir loolu mu leeral ci biir xutba bi euh, ban effort la sëñ bi def ci alxuraan effort bi mu ci def mooy daf koo liggéeyal yëkkati ko teral ko gën koo jox dayo xool ñi war a jàng mu orienté leen ñu jàng ñi jàngoon ba nopp mu fee te mën a taxawu alxuraan mu féete leen ci ñu mën a ñu ñu ñu ñu mën a taxawu alxuraan di ko jàngale di ko jàng waaye it di ko di ko di ko wàcce ay kaamil kon taxaw gi mu taxaw alxuraan mooy ñogal na ko gën na koo yëkkati taxawu na ko ci ay nit ñu mën koo mokkal waaye tisaare na ko loolu lay wax naan akramal qur'ana wa xama xima teral na alxuraan ñoŋal na ko aar na ko wa xafadahu awlaadahu wa muridi ak njabootam fexe na bañ mokkal alxuraan moom sëriñ bi radiallahu anhu waaye ay taalibeem tamit ñi nga xam ne ñëwoon nañ jéblu ci moom fexe na bañ mokkal alquran ñooñu biñ noppee ñoom it ñu taxawu alxuraan di diglu joxoñub sëriñ bi ba tax ñu mu mujj seen comportement rafet lool ba boo leen xoolee xemmem leen boo jaxasoog ñoom doo bëgg a teqalikoo ak ñoom comportement bu rafet boobu ak dund alxuraan googu jaar ci yoon wi moo tax ba ñu mujj euh, sunna taxaw ci seen jëmm ñuy nekk ay misaal ci sunna nekk ay exemple yoo xam ne boo leen jëlee teg leen mën nga ne sunna suy dox lañ comme foofu fi la leeral ne kon fi la leeral la ne kon ni sëriñ bi liggéeyale sunna bari na liggéeyal na ci ay anam yu bari bind na ci xamle yonente bi salaa salaam xamle na ay melokaanam xamle na ay jukkoom xamle na ay kimtaanam waaye bokk na ci lim gën a liggéeyale sunna nag mooy defar ay jëmm yoo xam ne foo leen gis ñuy dox dañuy nekk ay exemple ci sunna ndax ay sunna yuy taxaw lañ ñooñu nga xam ne ñoom it biñ fi nekkee bi ñu amaatee ak njaboot amaat ay taalibe dañ leen a yar ci la leen sëñ bi yaroon loolu di kon continuer di continuer di continuer bañ mujj gis ci yoon wi ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo jaar yoon ay borom xam-xam yu jaar yoon lañ ay boroom xam-xam yu xam lañ di jëfe liñ xam ba noppi jaar yoon am ay melokaan yu rafet ak i comportement yu rafet ñoo ñooñu génne ay ay ay ay ñoo xam ne dañ leen di joxañ ay làmp yoo xam ne dañuy niitoo ci ñoom. nga xam ne képp ku jaar ci seen yoon rek laa yadillu wala yashqa du sànku waaye dundam du naqari euh, bi loolu jàllee nag euh, mu tëje xutba bi ci ñaanal ñoom ñépp la dale ci yonente bi sallallahu ak i saxaabaam ak ñi ñëw ci seen ginnaaw sëriñ bi radiallahu anhu ak ñam defar ñooñu bañ jàllee ñooñu ñañ defar ñoom ñépp mu ñaanal leen suñu boroom fay leen ngeen ji fay fayal ñu leen waaye fayal ñu fayal leen xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñoom lañu taxawoon di leen jàngal di leen jubbanti daaj ci ku dàkkoy tëjee yaxfirullahu lana walakum yàlla nañu yàlla jéggal waaye yàlla na li yàlla jéggal kon ci lu gaaw bu ñu dee xool li ñu jàngat ci xutba bi mën nañ koo too mën nañ koo tënk ci juróomi tom tom bu njëkk bi mooy gis nañ ne ñaari xutba yi am na ak ràbbaloo am na ak dëppoo ndax tasalsul mantiqi am na ci mooy xutba bi fi muy jóge ni muy doxe ba fam jeexe daanaka boo ko toppee dangay gis ne xalaat yi dafa dëppoo dafa commencé ci alif ñëw ci baa ñëw ci jiim ñëw ci daal ba ni mu jeexe mooy fi mu commencé mooy wane ne jaamu yàlla moo tax ñu bind nit ñi jaamu yàlla boobu dafa am ay charte gis nga ni muy wàcce waaye jaamu yàlla kenn mënu koo def te tënkuwoo ci alxuraan ak sunna wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam effort yi mu def ci alxuraan ak sunna bi mu fi jógee ñu ko fi wutu ñépp effort yi ñu def ci alxuraan ak sunna ngeen gis ne kon tasalsul mantiq yi am na ci mooy xalaat yi dëppoo na toftaloo waaye it tataaboo manhaj yi am na ci mooy méthode bi mu bindee xutba bi mooy méthode la bu bu bu bu leer bu boo xam ne euh, ak dëppoo am na ci mooy lenn lu ci ne teg na ko ci palaasam lu war a jiitu jiitu na la ca war a tege tege na ca la ca war a tege tege na ci ba xutba bi jeex kon loolu muy lu am solo bokk na ci li ñu jàngat ci xutba bi mooy euh, lépp lu ñu war a liggéeyal suñu boroom la ca jiitu mooy sàmmal ko ñaari cosaan yii te mooy alxuraan ak sunna ndax ñaari cosaan yii kat euh, lépp lu ñu bëgg a xam ci diine fa lañ ko mën a jële waaye bépp yoon wu ñu bëgg a aw bëgg a xam ndax yoon wu baax la wala yoonu bon la ci ñaari e, joxañ yi rek lañ ko mën a amee te mooy ci alxuraan ak sunna kon liggéey ba fa war a gën a fese moo tax ñu baax ñépp ci ñaar yi lañ lañ lañ lañ doon liggéey mooy ci alxuraan ak sunna di ko sàmm di ko ñoŋal di ko tosaare waaye it di ko di ko melowoo ba ku leen gis xam ne alxuraan juy dox lañ waaye it ñuy ñuy ñuy wane njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ñetteel bi ñu jàngat ci xutba bi mooy ne daal nattuwaayu tedd nga ak nattuwaayu kawe ak nattuwaayu jëmm ju am personnalité ñu ngi koy xamee ci loo jëfal alxuraan ak loo jëfal sunna ndax gis ngeen bi ñuy wan darajab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daf ñoo wax lim jëfal alxuraan ak nim lim jëfal sunna bi ñuy bi ñuy wan darajee saxaaba yi ni ñu toll ak ñeneen fi wutu ñëpp ñoom ñëpp ba ci sëriñ bi radiallahu anhu darajaam fi mu toll daf ñoo wax lan la liggéeyal alquran ak la lan la liggéeyal sunna kon moom mooy nattuwaay bi ñeenteel bi ci li ñu jàng ci xutba bi mooy xutba bi dëppoo na ak jamono dëppoo na ak jamono euh, contexte bi mu ñëwee ak tamit di juge bi thème bi li mu doon traité ndax kenn ku ci ne xam na ne jamonoy màggal lañ nekk te xutba loolu dañ ko ci chart dañ ci chart mi ngi dëppoog munaasabaat yi xew-xew yi moo xam muy xew-xewu diine moo xam muy xew-xewu dëkk moo xam muy xew-xewu euh, boo xam ne bu mondial la boo xam ne àdduna bi ñépp ko bokk waaye bi ci mujj te muy li ci ëpp solo mooy li ëpp solo ci li ñuy jàngat ci xutba mooy élément yi ci war a am yépp am na ci mooy xalaat yi dëppoo na niñ ko bindee jaar na yoon waaye wax waxdatul mawdu am na ci mooy benn thème lañ jël traité ko daat koy toftale leen lu ci ne la war a jiitu jiitu la ca war a tege tege ca muy lu am solo ni ko Cheikh Mamadou Mamoun joxe it am na solo daw na yaram yaakaar naa it képp ku nekk ci jumaa ji wala nga doon diglu ci jumtukaay yi da nga gis ne xutba bi wax dëgg yàlla ku teewlu ku ne danga nga ci mën a jële ay bind yu yees kon daal ci gàttal loolu moo aju woon ci xutba tay bi muy lu am solo loo xam ne eh, sëñ Maamun tënk na ci lu bari te lépp génnu njàngaleem sëriñ bi mm, radiyallahu anhu ndax sëriñ bi loolu rek la ñu doon digal muy ñuy topp ñi nga xam ne naka jekk ñoo fi toogal alxuraan ñoo fi toogal sunna am na fu mu doon waxee ne maa ngi leen di dénk yéen samay mbokk ngeen di sàkku xam-xam te topp suñu boroom ndax kat koo xam ne sàkku xam-xam da koo raw ak topp yàlla dana rëccu ëllëg yowmal xiyaam daal ne képp kuy ku bëgg a jaamu yàlla na nga topp ñi nga xam ne dañ fee taxawal sunna dañ fee nekkal sunna wal yaqtadi l aabidu bil muttabiin li li sunnati rasuli ahmad al ahmad al amin ndax ñooñu duñ la digal lu may topp yàlla duñ la moytalikuloo it lu may topp seytaane daal ne maa ngi leen di tere ngeen di topp seen bànneexu bàkkan ak di topp ay bidaa fu ngeen toll yi na ngeen fexe ba lépp lu ngeen def nangeen ko teg ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lépp looy def teg ko ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga jële aw yiw waaye lépp looy def di ko teg ci sa bànneexu bàkkan ak ci ay bidaa na nga xam ne aw ay rek nga ciy jële kon loolu moom lañu tënkaat ci xutba bi moom lañ gis noonu it ci niñ ko détaillé xam naa kon dañuy santaan ñépp leen gërëm ci ñi ñu doon topp ci GMT ak ci page Facebook daayira Moukhaddamatoul Khidma ak ci jumtukaayu xarala yëpp di leen jox dig daje incha allah ba beneen àjjuma ci seen beneen émission Ëttub Xidma wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa